waay gars yi xool leen li waa Arabie Saoudite nara fay Al nara nar a fay kookee di Neymar Junior football nag neexul ba neexul mais ñi fi ñi ci nekk nag wërsëg la de wërsëg la ko quoi yi lii kenn xamul lan la waaye xaalis bi dañ koy gis nii di ci wax nii rek salaamaaleykum amateur de foot nuyu nañ leen ko ci nekk seen tur seen sant mu ngi noonee Neymar nag dafay dem signé foofee ca Al ñu ngi koy waajal visite médicale am mu ngi ci yoon pour def ko. mais salaire bi ñu ko tegal c'est énorme vraiment biñ bi ma njëkkoon a jot nag salaire bi nga xam ne moom lañ njëkk jot maanaam quatre vingt million d'euros chaque an la deux ans yi cent soixante millions d'euros ci contrat bi mu signé contrat boo xam ne PSG dina ko fay lu tollook moins de cent millions d'euros lañ koy fay mais salaire bi ma jotaat man moo ma moom moo ma troublé si c'est confirmé si c'est confirmé quoi maanaam kookee di Neymar dina laal chaque euh, seconde. quatre virgule quatre vingt euros waaw ah. chaque semaine chaque minute dina laal deux cent ay quatre vingt huit euros maanaam chaque jour chaque heure boobu dina laal dix sept mille deux cent quatre vingt euros par heure loolu xam nga ñaata la ay cent onze millions par heure cent douze millions par heure chaque jour dina laal quatre cent quatorze euh, quatre cent quatorze mille sept cent vingt euros par jour. loolu ay deux cent ay quelques millions euh, d'euros cent et quelques millions de francs fa chaque jour daa i daa deux virgule neuf millions d'euros par semaine loolu c'est énorme am na jour professionnel yoo xam ne nii duñ ko sax am par at ah waaye douze millions par mois douze millions d'euros loolu am na jour yi toj Europe nekk ay star duñ ko laal par an waaye cent cinquante millions d'euros par an loolu c'est énorme deux ans yi mu doon trois cent millions d'euros boobu laa mujjee jot xaw ma nag c'est confirmé ou pas mais man bi ma njëkk jot moom balaa gënoon a euh, boobu moo gënoon a assuré quoi pour le moment muy quatre-vingts millions d'euros chaque année deux ans yi mu doon cent soixante millions d'euros c'est énorme c'est énorme Arabie Saoudite ñii seen xaalis bi fan lañ ko jëlee lii li ñuy fay xaajaati xaaj bi européens yi fayuñu ko mu ngi noonee gars yi Neymar daal dafay dem si signé waa Catalan yi naa xam naa ni seen yaakaar tas na ci noonee gars yi dañuy dem ci xibaar mercato tey ci 14 août bi dañ koy continuer ba léegi Caicedo nag mën naa ni euh, def na visite médicale bu njëkk ak Chelsea matal na lépp signature contrat moo ci des ak yeneen documents yi des mu ngi noonu dafay signé ba 2031 euh, renouvelable ba 2032 ngeen xamee ko noonu kon nag Liverpool ñàkk na kookee di Caicedo Al Hilal bi nga xam ne topp na Neymar ba daanaka am na ko sax jamono ji continuer ci discussion ak kookee di euh, Mitrovic Mitrovic nag moom am nangu na dem foofee ci Al Hilal léegi nag West ah, fulaam ak Al Hilal moo des ci mbir yi mu ngi avancé bu baax a baax am nañ yaakaar na ñëw ah kon nag Al Hilal nar naa diis de Koulibaly Neymar Neves ah, Savic euh, kookee di euh, Mitrovic en tout cas équipe européenne laa fi nar a gis ah waaw kookee di Kudus nag West mu ngi ci def kenn kàttanam ngir war koo mën a jënd ngir lan mu war a mën a remplacer kookee di euh, le brésilien boobee ñu naan ko Luca Paqueta pour en cas bu demee foofee ca Manchester City City nag teg na ci offre soixante-dix millions de livres sterling bu njëkk ñu bañ ko mu ngi waajalaat beneen offre pour jënd kookee di Paqueta te ñoom am nañ ci confiance que ni euh, vraiment dina leen dem rejoindre ngeen xamee ko noonu. waaye di leen leeral que Alex oxlade de ancien coéquipier bu Sadio Mané nekkul foofu ci Liverpool jóge na fa libre dem rejoindre Besiktas la signé agent libre trois ans la fa signé ngeen xamee ko noonu waaye le jour boobee ñu naan ko euh, Carlos Baleba nekk foofee ca Lille. moom nag mu ngi ci yoonu dem foofee ca Brighton ngir war a mën a remplacer Caicedo bu fa jógee gone gi mu ngi jur 2004 militaire boobee ñu ngi xaar ci 16 millions d'euros daal lan ko nar a jëndee ñu ngi xaar mbir daal nan la dara nar a demee naka la pour ñu war a fa man a dem mu ngi noonu ngeen xamee ko noonu waaye it le joueur boobee ñu naan ko euh, joueur Aston Villa boobee ñu naan ko Tyrone Mings moom nag euh, dafa blessé te it Aston Villa annoncé nañ loolu. ñu ngi xaar daal durée d'indisponibilité bi kañ la ak nan la naka la ngeen xam ko ci njekk ak teranga kookee di euh, Strasbourg nag mën naa ni euh, Ismaïla euh, Doucouré Wolfsburg mu ngi ciy def kenn kàntanam ngir war koo mën a jënd gone ak 2003 boobee ñu ngi xaar mbir mi na lay demee ak naka la looloo nekkoon gars yi xibaaru tey 14 août ci wàllu tàggat yaram képp koo xam nag abonné goo suñu chaîne YouTube c'est simple duggal suñu bio TikTok nga bës logo YouTube mu yóbbu la directement chaîne YouTube bi nga abonné foofu activé cloche bi di seetaan yi ba mu jeex loolu ngeen ñu mën a soutenir bu baax a baax jàmm ci yéen yi ba beneen yoon ci yeneen vidéo Amin. وإنا لك All around. dégg nga yàlla def ay Sinois. ngeen mokkal alxuraan dégg nga moom mokkal alxuraan moom seen yaay nañ kontaan vraiment. loolu dégg leen bu baax a baax. si yaatu macha allah. yàlla yàlla def ay Sinois. def leen ay